5 4 3 mbokk yi xaritu internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax tey nag yu seet siwaat euh, koo xamante ne ku sénégalais yi bëgg lool euh, namm ko lool euh, mu nekk ci réew mi di def lu baax di wax lu baax mën a taasu lool nekk nag kilifa ci taasu bi Dakar nangul ko Saalum moom kenn dootul wax na fa bokk am bongo ñu ngi lay nuyu. <laughs> mais Yves maa ngi lay fay mon frère taalibe mm-hmm. Maulana Cheikh al Islam bi. Mm-hmm. maa ngi lay bëggee ay conteneur sama xarit. Mm-hmm. may bëggee tamit Sénégal àdduna wërngal këpp ñi nga xamante ne nii ñooy bëggee am ndaw. waaw ñi nga xam ne nii ñooy soppee am ndaw maa ngi leen di bëggee. waaw. waaw ñi nga xamante ni ñooy soppee am ndaw maa ngi leen mm-hmm. di bëggee na wëngal képp ñu ngi lay mm-hmm. bëggee foo ay mën a nekk maa ngi lay mm-hmm. bëggee Yves bëggee naa la am Sénégal ñoo la namm parce que defe ne gëj nga def sortie <laughs> waaw ah, nga wax ak sénégalais yi ah, ci jamono bi nga xamante ne ah, yaa ngi ci li nga nekk di dóor waar génne say morceau yu baax sénégalais di ko bëggee mais am lëlu rek la ma la ma waral nga nga génne morceau bu toog ba pare lëlu bàyyi morceau bi di daw waaw man Yves du sànni wax damay xaar ba soos bi dëkk ma raxasu yoor mhm. du ma kuy sànni wax mhm. man su may def rek mhm. nécessité la bu wax ji bëree du man bu jëf ji bëree bëlëb la maa ngi toggul leneen lu neex loo xamante ni bëgg lañ ko tegal samay fans ñi may béggee Sénégal àdduna wërngal këpp maa ngi ñëw bi nga ñëwee euh, ci taasu bi nga jóge Saalum ñëw Ndakaaru ci lu ndaw la la ñëpp nangulee mu jóge ci biir oto ba jëm ci studio yi tey bi nga jàngaatee ci diggante bi ñeenti at juróomi at lay mat suma juumul mhm. nga ñëw imposer Sénégal mhm. waaw xam nga ku nekk ak la ngay liggéey mhm. man maa opté doon artiste bi kon art bi rek mooy suma liggéey dama war a jublu ci aar bi concentré wu ci fexe cee doon marque ndax xam naa ne mhm. su ma góorgóorloo ci sama aar mhm. te maa ko gëm ba ma juddoo ba tey moom laa xam mhm. mun naa dem ndax aar dañ ma ko doon dañ ma ko jalis sama yaay moo doon aar mag sama famille kenn du ci aar man may aar kon naa fexe valoriser ko waaw ma ñëw toog jaay Dakar da nga ñëwee toog est-ce que yomboon na ak buuxante bi parce que fekk nga fi quand ay taasukat yu mag yoo xamante ne dañ leen nangu lool fii ci Dakar est yomboon na du yomb du yomb mm-hmm. dañ lay eh, da ngay gis yoo xam ne ay xeex la ay mm-hmm. siisu mm-hmm. mais jëlal ki bañ teg ci ki nangu te dox sa dox man noonu laay joué man Yves boo ma bo bu ma la neexul te ñaanuma la eh, amuluma intérêt dama lay nangul la nga yàlla may parce que yow la ko yàlla may ku son mos ku sonn di nga mos la nga war a am rek ngay am bés bu ma ñëwee ci xew boo xamante ne nii mhm. mm, xew ba dama faa fekk samay nawle mhm. ku ne àndaalante sama wërsëg mhm. kee andi wërsëgu kële keleen andi wërsëgu kële tey man maa lekk sama wërsëg boole lekk wërsëgu xaarim temps yi munta nekk kon damay fot dafa métti woon dafa métti woon bi ngay doog a ñëw ku ne xam na ne Euh, boo ñëwee def loo xamante ne xëy na mosuñu ko xam ci taasu wala dégguñu ko ci taasu mhm. dina am ay taasukat yu gis seen bopp mhm. mosoo dem ci xew la mhm. dajeek ay taasukat nga xam ne man ñëw naa mais ñii ma fekk fii nii nanguñ maa ubbil waaw ça dépend ci moo tax euh, ku dul xaar ñu fay la doo jaral kenn paas ça dépend ci kama déplacé du ñëw ci xew ruube du ñëw si xew fekk fa ñoo xamante ni leer na ma ne ñii neexuma leen. Mhm. du ma xool na ñii neexuma leen. Mhm. xam nga senegal lan la. Mhm. kaf ree ba jàll. liñ naan kaf ak dëmm. kaf ak dëmm xam nga ne jigul njaboot. dëgg la da gis koo xam ne nii dalay ree. te neewul ci moom. mais yow da ngay xam ne kii neewul ci moom. nga ambiance comme moom jàpp sa mor sa njàmbur. bi ngay ñëw am bongo lañu ñu xam Sénégal ndekete xamuñu ne am mi du bongo. Hmm. waaye bongo ya nga àndaloon moo indi tey tur bi ba tur bi topp la. man man am artiste laa. Hmm. ndeysaan waale mës na ma ko pexe benn soirée bu ñu demoon Ourossogui. Hmm. concert bi. ma yëg taasul ko mu ne ma doo am bongo am artiste nga. mais barke Seydina Mohamed Maria Sine may sa biige na ma ko waxee sax xamu ko. man artiste laa. man man man Yves li ne ci man sax génne wu ko. génne ko yàlla yàlla laf cat. lan moo tax génnagul talent bi ñun ñi nekk ci art bi xam nañu ne kii dafa am talent. Mhm. mais am na luy bloqué tout le temps. Yves mhm. gis nga ñun artistes yi. Mhm. bu ñu demee ba war a am li ñu war a am. gisuñu ko. amoo jàppal. yaa ngi lijjanti nooy fayee sa appartement bi nga dëkk. dangay fay courant. say famille dañ lay woo da ngay joxe sa kër yaay. da ngay gis ñoo xam ne dañ ngay dis problème. amoo ko. doo mun a am li nekk sa bopp bi. dëgg la génne li nga bëgg yëpp. doo ko mën génne da ngay mhm. tiit. Mhm. léeg-léeg nag nga lëlu. Mhm. concentré wu ci benn affaire. ñëw génne ko. mais Yves Yves li ñu yor dafa bëri. barke Seydina Muhammad. te boo ci dégg ay textes yu dangereux. barke ñu yi nga génne peut cartonner. non mosoo génnee dara ñu naan euh, moo am ah, moom bi yoon dafa daanoo ko yooyu Sénégal loolu moom nangul nañ la ko. waaw mais euh, fi nga war a egg tey comme li ñuy wax. ba léegi dafa mel ne gars yi nanguwuñ la tàllal loxo parce que mm. su ma juumul dugg woon nga fi studio mm. bay def album mm. ak Papis Ndiaye studio bleu mais loolu mu mujjul génn lu tax génnul waaw bon defoon naa fa studio Papis Ndiaye maa ngi koy nuy au passage mm-hmm. Pape Papis Ndiaye studio bleu mm-hmm. bi ma ñëwee Dakar ni cëpp mm-hmm. moom li mu njëkk a wax mooy kii dafa am talent fekk vie vie fa. vie sàll vie sàll. maa ngi koy nuyu sama père. Mhm. kii dafa am talent. Mhm. kii duñ ko bàyyi mu dem. Mhm. Papis téye ma fa. am na nag loo xam ne. def na ko ci sama aar. parce que Papis def naa ma doo génn concentré wul. lalul. dafa lii. toogal fii. wax dëgg yàlla. mais nag xëy na la mu bëggoon ci man ak xaar ba mu bëggoon ci man. moom laa yàkkamti. moo tax ma teg ak moom. toog na ko papa. Mhm. man dama bëgg a dem parce que maa ngi jëm mag. Mhm. maa ngi jëm mag. Mhm. te aar bi laa yaakaar. suma famille dañ may woo di ma dis problème te far fosta damay def ma bañ te aw doole. comme demee na nii man maa ngi dem. te fekk moom tam mu ngi yoon ci projet defar ay studio mu yooyu parewul mu nangul ma ko. ma dem ci alaawu seli kenn déggunu. te kenn duñu dégg. parce que dañ ko waxtaanee. waaw kenn duñu dégg. Mhm. ba ma ko sentiree. Mhm. dama fa nekkoon di def ay affaire mhm. ba ma ko sentiree tul. damaa toog waxtaan ak moom mu comprendre ma comprendre ma nekk ci yeneen. yor sama propre moyen. lijjanti ko ba am ko. dem studio laay jaaj mu defal ma son. ma ànd ak sumay frère ñoom Madi Camara mhm. ñoom bay mbay mhm. ah, ñu jàpp ci aadama nekk ci studio mhm. am ci yéene ñu génn ak sama texte bu ma koy liggéey Aziz Diallo suma frère ñu génn ko mu nice ma toog taalal sama loxo yàlla xam naa ne xëy na suma yaay liggéey na ko suma yaay liggéey na ko man suma yaay mag la artiste rek la man doomam laa te xam na ne man xaw ma bañ xaw ma ñàkk def teraanga su may famille xam nañ ko. Mhm. man boo ma laajee aw ma sax damay feebar. Mhm. damay feebar. Mhm. lii rek laa yaakaar. ku ma ci jàppale. lii laa yaakaar. ku ma ci jàppalewul lii laa taat ta toogeewu la danga koy bàyyi mu dem. man ba may dund aar sax su may famille nangu woon koo. mais dama leen masku ñoom ñëpp. danañ ma seetaan de. dama leen masku ñoom ñëpp. du ma la woo. du ma la ñaan. du ma la lijjanti mhm. jaay naa fataaya complet mhm. jaay naa beñe suma jabar a ngi nii suma mhm. cousine la jaay naa beñe yenu naa sippax jóge dakaar glacé jóge Kaolack ñëw wër def porte à porte yenoo sama vingt kilos ba mu jeex ma demaar yenuwaat vingt kilo demaat ko ba mu jeex ñëw jaayi dem andi ko def naa ko si ba soor kon man sama aar bi nga xam ne dama cee aar ba gàddaam ku ma ci jàppale yàlla gis la ci sax parce que ku ne xam na ne euh, doom bu góor ci mm-hmm. waajuram dafa sori. Mm-hmm. yaay taaw wala am nga ñu la mag. non non man mm-hmm. am naa mag Pape góor gi. suma mag la enseignante la. enseignant la ma ne enseignante. <laughs> amul problème ça se comprend. enseignant la waaw. allah nga nekk sa waajur nga wax comme ni nga wax léegi dafa yaakaar ci yow. li ngay def aar sax xëy na da ko doon làqatu mm-hmm. ba def li nga bëgg def yëpp tey mm-hmm. tey boo toogee ba agsi ci niveau bi nga agsi tey nii mm-hmm. mos ngeen toog waxtaan ci yéen ñaan ngeen tëjuwaat mu am ay kàdd yu la dénk waaw man suma yaay bi ma euh, nekkee Kaolack jóg rek na ko yaay man tey damay dem Dakar munuma lu tax ma ne parce que fii ma nekk fii munuma ci xew yi ngeen nekk mi ma fay lu ngeen war a jël ma jël ko man bu dee dëgg la maa ngi dem Dakar munuma koo xam dakaar mun ko yaay damay dem Babacar a ngi foofu. Mhm. su ma rakk ji sig dantaal. Mhm. ma dem Babacar luye néeg. Mhm. ñu nekk fa. nekk fa quelque temps ma ànd ak moom ñu dem sama kër frère bi ñëw Dakar ñu bokk ñun ñëpp luye néeg. waaw mais su ma yaay lim ma daan wax rek. mooy ah man de damay seetaan TikTok. waaye bés bu ma toogee dégg ñu wax kawtif boo def. ci saa si damay dee. ndax man kenn du ma baal. Mhm. te man sa aar man rek maa ko nangu. Mhm. dégg naa ci lu ne bés bu ma toogee rek benn jour boo xam ne nii rek. Mhm. seetaan naa TikTok ñu ne kawteef ci yow rek. damay dee. waaw man dimbaleel. bul jànni kenn bul jànni kenn. di nga jànni nag ba jànni li nga xam ne mooy sa wërsëg. ma déglu liggéeyam ma déglu waxam ndax jigéen ji baax jigéen. tey jéem a prêter serment. yëkkati loxoom ne dinaa fi jur ki gën ki ma fi andi. Mhm. waaw loolu yaay rek moo ko sañ. Mhm. bu la ñaanalee rek demal xappil. Mhm. xappil waaw. ñaanal na la tey gis nañu macha allah évolution bi nga am ci aar bi eh, li ci des rek mooy xëy na gars yi gën cee jàpp. mais parfois li ñuy wax artistes yi problème staff la ñuy am. maanaam staff bi xam artiste bi li nekk ci moom. mun ko yóbbu fi mu artiste bi soxla wala fi mu bëgg dem ak moom. est-ce que loolu moo tax affaire bi yéex. waa xam nga maa ngi am suma bi ma jógee ci studio la mhm. dama am euh, Fifita mhm. ak suma frère Babacar kër Sig Dantal mhm. mu ngi ci suma staff ñu formé suñu benn staff Fifita mooy suma ménagère mais am nañ group WhatsApp boo xam ne ñun dañ ciy waxtaan am nañ staff boo xam ne mu ngi dëgër këj macha allah léegi maa ngi gis ne ñu ngi jàpp suma liggéey mu ngi gën a professionnel waaw boo amee loo xam ne da nga koy tëgg du man ngay waxal da ngay waxtaan ak Fifita waxtaan ak Fifita. Mhm. Fifita moom mooy waxtaan ak euh, man. Mhm. waxtaan ak groupe bi kon. Mhm. ëlbatu ko ooma ci man la ñuy mujjee. xamal ma. waaw ma déggoog ñoom tamit déggal leen. waaw d'accord fan yee euh, jékki-jékki rek ñu ne am bongo dafa takk ñaari jabar ci benn bis man moom bu ma ko déggee wax dëgg yàlla dama ne non gars am dafa demoon ci benn mariage toog di photo ci diggante <laughs> ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari seet yi après am na benn instance woo naa la benn guddi pour dugal en direct pour mu leer ndéygée ne ma woo ko nga ko ndax mu mën a leeral di xam moo xew <laughs> <laughs> xam nga loolu xam nga ma la ciy may uh-huh. xel dafa dégg ndigal foo ko teg rek fa lay tegu dafa dégg ndigal day jël lu baax léegi léeg mu jël lu bon kiif li ci bët li ci xeeb li ci bët ko gën sa xel bi def na la wàllu boobu juddogo nit day xalaat lu baax bu soo teleer waaye booy xalaat lu bon bu soo tegaañ la if lan la xel di jëriñ xanaa du xalaat te xalaat lu baax tey def lu baax tey dem fu dem mu mbësal di wax lu waxu di dem fu demu gis nga bu koy dundee defal na vëg gi fëpp bul toppatoo bul faale bul sóoraale sax xel ba defar paaka xam na ñaata la rey ba defar goon xam na ñaata la rey xel ba defar bomb nag xam na ñaata la rey xel amul yërmande billaay amul yërmande xel bu amul yërmande nit bi jëlaat xel doom sax njëtt ko sànni mbalit kon amul yërmande xaarim taa <laughs> taa ñaaw waa <laughs> Eh, alors yow bi nga toogee bi loolu. waaw non non xam nga. Euh, dañu ay retaan dañu am jot. Uh-huh. man Yves ren euh, kolaasee nañ ma nu ne. Mm-hmm. ren sama noon tasaaree na ma nu mm-hmm. nen sama noon yàqee na ma nu ne. Mm-hmm. mais amul buzz. amul buzz yàqul def loo xam ne ni moo am buzz mu nice. mooy jour bi ma jëlee suma soxna. Mhm. muy sama cousine. Mhm. papaam ak suma yaay bokk benn baay. Mhm. fu doom yàlla sos ko fa. kenn mënu ci dara. ñu weer loolu te xamuñ doom ja. jël sama doom. foto ko dugal ko ci internet bi. te jotewuma ki ko def dara. wallaay dëgg la jotewuma ki ko def dara. bu mu weer sama doom ji. da nga ne ku la jege wala. koo xam non mun na doon ki ma déggee mais amul problème. sama jaba sama jabar tiit ma ne ko man nga ko seqal mhm. dinaa am noonu dinaa am soppe dañ may bëgg a bécc dara ma ragal mhm. bu ragal mhm. mu dal senegal est-ce que moo soxoree noonu quoi ki naan dangaa rafet bu jëndee golom tuddee la ko dëgg la ki danga bu gasee kàmb dugal la sa ki ngay tawat soxla dalay xamal te du ko fajal on est quel Mhm. et alors. Mhm. oui muy lu doy waar ñu ñëw nag ci actualité balaa ñu ñëw ci. son excellence is coming coming <laughs> tey tey yow ku ku la xam xam sa digganteeg Wally Seck mhm. hmm, ngeen nekk ay wóllëre ci aar bi gis la boppam lu muy def boole la ci eh, tey bu fekkee ne xëy nga tey gis eh, sortie bi Ameth def ban jàngat nga ñu ci mën a defal en tant koo xamante ne ku jege waale nga <laughs> parce que tey eh, Ameth li mu def sénégalais yu bëri rafetlu wuñ ko ndax mënoo ànd ak nit nekkoon ak baayam baayam dëddu nga toog am yoo wax nga xëy tey di ànd ak doom ji di ko gunge nga xëy toog ci télé ne kontaanoo ci moom te xëy na mënoo nga def comme na nga daan def bu njëkk ba dem toog ak waaw xam nga man nag Yves loolu li ma la ciy wax mooy maanaam. Mhm. Yves bu ma amee lu ma métti ci yow. Mhm. man damay am audace yi mhm. ñëw ba ci yow oola mhm. mhm. su ma la gisul sax naa la oo téléphone na la Yves dama bëgg maa ñu jàkkaarloo ma la soxla boo ñëwee ma expliqué yow li nga xam ne moom moo laa jotee yow ak li ma metti lépp nga jox ma li nga xam ne mooy sa explication ma xam bu raisonnable damay dem amul ku may jël di boole ni internet yi léegi ku ci bëgg a faj ci ngay faj. dëgg la léegi secret amatu ci amet ci moom bàyyi waali sax la laa koy wax mhm. bàyyi waali la mhm. moo papa coon ñoo nekkoon mhm. ku nekk xam na diggante ëmat yi papa coon amet ci dañoo nice ñoom ñooñu daan ànd ak pap kii papa Ndiaye Thiou seen ànd boobu daf doon nice groupe Thiou waaw boobu waali jógagul sax na jàppale doomam nañu juboo mhm. àdduna amul solo mhm. bu dee ñoom ñaar jote nañ benn affaire mhm. na oo doomam mu waxtaan ak moom bu mu déglu ma sàmba bu mu déglu ma paate bu mu déglu keneen parce que tey jii ni sa doom sax bu jotee ak yow nga gëdd ko ci biir nit day taxaw riposte loolu nit la loolu nit la sa doom boo ko gëddee ci biir nit wala ma joteeg yow tey jii nga wili pande ko dama naan bu naree ñaaw na ñaaw man tam damay tàlli écarté ñareet boobu deret day xeeñ. waxtaan dafay andi déggoo. Mhm. Mhm. Mhm. waxtaan day andi déggoo na dem seeti doomam. ñu waxtaan ñu waxtaan maar baay faal parce que ñëpp dañu profité ci lii nii pour dal ci kaw Wally Seck. waaw déedéet déedéet. xam nga lu tax. Wally yàlla may na ko Sénégal. yàlla may na ko jëfam ju baax. yoo xam ne nit ñi miin nañ ko. amaana sax boo jotee ak moom yow. nga taxaw wili pande nga taxaw wax mm-hmm. doo ko dégg mu wax mm-hmm. doo ko dégg mu wax du ci mm-hmm. wax du ci participer du ci addu léegi yow nag wax jooju ngay jël di ko wax sénégalais yi dañuy mujj sax ñëw dañ naan kii na noppi ki muy joteel waxatul dëgg kii na noppi patt tontu la patt day rey nit man patt rek laa bañ ñemewuma kuy def patt waaw lu ko métti mënoo ko xam soo ma defee ma jano yow nga ree ma ree mhm. Mhm. dem su yoon mhm. doomam la nañ dem waxtaan te bu kenn sug suk nañ ba sug-sug xam nga luy sug-sug sug-sug mooy sug-sug dañuy dem fee gas wàq ba mu xóot yaa ngi dégg ñu def galaas waaye bu ñu dem dañ fay roofaale kaani génn ci biti rek ree toj naa fa de demaat ci kële wala moom bu mënta dem day yebal beneen pion tam mais moo beneen pion bi dañuy déggoo mhm. ñu yàq xolokee yàq xolokee àdduna amul solo mhm. àdduna bi dafa jeex ba pare mhm. Yves mujjum jamono lañ toll loo mës a dégg ngay dégg loo mës a gis ngay gis mës ngaa gis ñiy taxaw di saaga suñu sëriñ ñu dañ ko mës a gis wallaay dañ ko mës a gis lu bees la fi de mësuñ ko gis léegi da ngay gis tarixa ak tarixa di xuloo gis nañ ko ci tiktok bi imaam génn wax ñu saaga ko nit taxaw di tagg sëriñ su baax ci nga xamante ni def nañ du jaloore Sénégal ñoo tee Sénégal. Mhm. waaye yow xaw ma lamp ngor bi lu fa ne. lu ko téye. Mhm. duñ gërëm ñooñ mhm. suñ doomu réew. di taxaw di saaga suñu sëriñ. dem ca dëkk tubaab ya. on est quel allah am na solo. son excellence is coming. nga ñëw ne excellence bi ñëw na <laughs> waaw nekk président bi. <laughs> man la de man la de. <laughs> bi nga defee son bi euh, coow li bëri na quand même. day bëri ah coow li bëri na day bëri day bëri day bëri loolu. dafa far xalal nga ñëw. loolu dafa far. Mm-hmm. loolu dafa far. Mm-hmm. clap your hand. clap your hand. son excellence is coming. Ah, nga ne everybody everybody son excellence is coming. Mm-hmm. ne Selbé laa ci biir game bi. jox leen ma seen lengee yéen taasukat di ma dikk kasak leen mhm. ndax taasukat yi ci réew mi ñëw di taasal géew bi mhm. ñooñu laay fëxës ba mu set ñëw dikk taasul leen mhm. ndax xaadim tax tàgga tax bi tax di wër xe tax di tax ak di tax du nu benn ay sa noon man ta tax bal yàlla tax ah, li tax ba tax ba taxa tax moo tax mu tax man damay leetar bu ndaw dama lay laaj damay leetar bu ndaw ma ci postu kenn du ma koli man du ma leetar bu ndaw loolu dafa far retours yi nga ci am lan la demoo après ci xew wala ci soirée gars yi naan sa dafa soof. non non non mais loolu kuy dugg xew. Hmm. loolu dafa dafa dafa xew. Hmm. kuy dugg xew. Hmm. nga jóge salon taxaw. oto yi ne PM nga waaj. am ruux le clap your hands. son excellence is coming everybody everybody son excellence is coming. loolu dafa ëpp ci xew. wallaay mës nga ma seetaan am live. mës nga seetaan loolu. laa bëgg ñu def ko nag ci télé ba. waaw après koor gi laa doon xaar mu jeex ñu def ko. kii xamuma sax <laughs> <laughs> allah am kontaan nañu. dañ fee fekk aussi sa sa xarit sa doom nday muy xaadim temps. sama seex moom tamit ah ku ku li muy def. Mm-hmm. ku xam boppam. Mm-hmm. seen seen ànd yaa xaadim temps lan la. ak fan la xam nga xam nga moom xaadim temps. Mm-hmm. premièrement moom. daf may daaneel. Mhm. man dama koy daaneel. Mhm. maa moom bu ñu àndee. Mhm. bëñam biir da nga koy gis. dama koy reeloo day ree ba bëgg a dee. ba pare. foowul. if man rab laa. xam ne bu ma la ñemee rek nit ku set nga. xam may damay dem këram ami jaame jabaram ji. togg ma lekk. tëdd nelaw. dem ñibbi. Mm-hmm. yenn saa yi ma oo ami jabe ami jàmme mm-hmm. yekk ko lu mel ni ketembe mm-hmm. mu daanu ci suuf xamtaan noonu la mel ak suma jabar suma yaay bëgg ko yaayam bëggoon ma yaayam jooju ñuy jooytoo noppeegunu yàlla na xippee ji aljana firdawsi waaw baax gën te gën a gën xamtaan foowul di ma présenté ay nitam bi ñuy waaj koor gi <coughs> ci biir koor gi sax ami jàmme dafa wax xaarim temps ñu dem jël oto duy ci parfum ba fees mu waat ñëw laaj sama jabar ane am mu ne ko am mhm. dafa génn mhm. mu ñëw mhm. toog xaar ma ma ñëw mu ne ma nañ jaay wala ko nañuy jaay parfum mu ne ko xaaram fi ñàkk personnage bi lu may jaay parfum mu ne ma yow ñu dem nga jaay tëggoo ma ne ko bàyyi ma maa ngi xapi maa ngi ak sama xaalis mu ne ma dangay dem ah ñu dem fu dem ubbi suñu parfum taxaw mu mel ni nit ñi ñun lañ doon xaar oto ba jeex mu dawaat jëliwaat man ko xaarim temps damaa tooy Mhm. man xaw ma lii fu ñu dem taxaw mu jeex bu ñàkkoon kiñaan du ko def. sama xarit la. Mhm. mu ngi nii. Mhm. sama xarit la borom sa biga bi. mooy sa baga mooy sa baga bi lam ca wax du ko nekk kii daa foo. alors am kontaan nañu. vraiment merci beaucoup. ci ni ñu dalal sa sa kër ñu waxtaan ak yow. defe lii moom man rek maa ko mën a am. waaw eh, balaa balaa balaa balaa am di tàggoo damay nuyu ñëpp. Uh-huh. di leen siyaare. Uh-huh. mais suñu jabar ji Aysa kenn du moom macha allah barke alxuraanu karim mhm. Aysa mhm. dafa ñëw ci kër gi mhm. di boole ñëpp loolu la xam nekk xale nag xale bu réglé xale bu yaru xale bu yaatu man dama ko rus mais damay ñëw ci kër gi dama koy wax lu mu neex dama koy dajji xale la quoi xale la xale bu ndaw la baax na yaatu na bëgg na nit moo tax nee naa ne am nee na ko ami jéem rek na nekk sa xarit. Mm-hmm. chaque jour moo ko ko. parce que jigéen buy sëy mm-hmm. nii rek la war a mën a mel. Mm-hmm. bu say jëkkër ñëwee nga daw. te ay sa noonu boobu ba tey noonu la dëkkee ñun. heure ñëwee ci kër gi dana daw. dina fexe ba wutal ma lu ma naan wala ma wutal ma bàyyi <laughs> damay wax. far man benn jabar laa am. moom fii laa far <laughs> fii laa far de. xaaral rek. am lu problème bi. man nee naa ko man sa ñaareel bi keneen ki. man faruma ci moom. bëgguma ko tey bëgguma ko suba. man Aïssa laa bëgg. <laughs> Aïssa la ñu serse ba mu neex ñu roof ko amee. jëlee ko gërëm indi ko suñu biir kër nga ko gërëm. Aïssa rek nga jëli ko. ñaar laa jëloo ñaar laa jëli mais il koo xam ne moom mooy gis toggam. Ah. Aïssa mooy togg. Hmm. mbaa boo doo problème. non man baax na kee baax na man gis kee man Aïssa rek Aïssa ba suba Aïssa ba ginnaaw suba. Ah. man du am benn jabar nga am ñaar. dafa xam ne Aïssa moo xam kuñ bi. ayca <laughs> ca yi kontaan nañu ayca jërëjëf. <laughs> <laughs>